watante linak. Juga jugal nga raxas sa nga man lina. tan damaa fugon suñu añoo pare ka jatu mooy raxas ndab jatu moo lay raxasal ndab yi te yow mu nekk sa liggéey nga Xadi euh, mm. ku ne xam na ni li muy dund ak xale yi ci kër gi metti na ba fu metti am te du dëgg yoon mm. te Xadi jukko bi muy wan nit ak jukko bi ne ci moom du benn kon nag il est temps ñu démasquer Xadi mm. te yow miis sama yaay ak sa papa ñoo bokk ndey ak baay kon yaakaar naa ne bu ma yaakaaree dara su ma la ko defloowee danga ma koy defal Xadijatu xadi euh, moo tax ñu xam la te gis naa ni ku baax nga te it bokk nga ci famille ba pare moo tax yow tamit ma bëgg laa dénk nga may surveiller xadi di ma xoolal lu muy def xale yi di ma xoolal ci lu muy dugg ci lu muy génn mais si yow nga ñëw ci kër gi dëkk fi di ma xoolal xadi loolu laa bëgg loolu ba nga ko waree sax xalaat xaw ma xel bi ku la ko may ba ko waree def dafa yag parce que xadi ni mu ak sama doomu magi, metti tar guddi suba ngon ñepp la metti muy ku ci tek sa beut ak ku ci tegul sa beut pour nga ko nak man de ngi sa ginaaw ba geeg gi fer ndax dafa bon jeeg bu bon la hmm. gis nga kiya man dama naron bo ñewul man may dox sama tank ñew ba sa kër wax ak yow parce que xadi limuy dundal Pa musa, ak bébé Amina mi bébé Amina mi du dëgg du yoon metti na ba ci kanamu yàlla man mii di xaritam wax naa ba sonn mënuluma ko dara bu ma waxee mu ne ma dangaa seytaane te amaana du loolu li ma ci gën a métti na mooy li muy dundloo Cisco dëkkee di ko nax ba pare di lekk xaalisam <laughs> lii dafa ñaaw lool te lii Kya il faut ñu jug ci parce que lu ëpp tuuru man dama bëgg sama góor am jàmm ak ay doomam. Mhm. te incha allah boo ma ci jàppalee rek gëm naa ne loolu dinaa ci réussir parce que nag il est temps ñoo xam xadi nu mu mel. Mhm. kon nag xel mi da ko wër comme wuti na lu ñu lekk nañu changé débat ndax su ñëwee dina jéem a lañ bëtu la lañ doon wax xam ko te xadi moom xamee fu ñu jëm duñu yegg. daa ñor de ko wër. Mhm. waaye yow film bi jeexagul ba tey. te loo ci xamul nag léegi ñoo évoluer ci wàllum hmm. cinéma. non Sénégal tey moom léegi cinéma ñoo ci gën hmm. franchement. waa ah, copine tey noo sama njëkk. ay sa neex na de waaye bu waajal sa bopp de. waaye de fu mu am jàmm am fa lu xewati. sa njëkk yi <laughs> ngi lay waajal loo xam ne. Sama yang jaga? Ya, dan jaga nggak? Aduh dan mewah aja takal wujuh. Tanya gue mau kok. Wujuh. Sedana? Gis nga miss? Moom lañ fi nara indi mu gane Ben fi. Ban miss ya? Ñaata miss nga xam. Te na xam nga lan moo tax mu fi Pour di la xool ni ngay defee ak xale yi. Parce que na maltraité yi ngay maltraité. Waa koñ bi yëpp koy te loolu na moo leen fi indi. yow eh, wax ma lool bañ la waxee lool lan nga neen wax. man mii man nee naa leen loolu man nañ ma ci génne bañ mu set wécc parce que sama xarit dafa baax dafay toppatoo xale yi di leen jox ñu lekk di leen jox lu ñu naan nanguwul sax xale yi sol yëre yu tilim man danaa toog fu ñu lay yàqee. tey sama copine. mi laa yaay ndaanaan. waaw <laughs> maa bokk ñoom. waaw nekkuma ci yooyu. li yow. lan nga gis ma doxalee ko. waaw miss bu ñëwee une semaine rek la fiy def une semaine neex naa mun yow jouer le jeu yow daal bul tant xale yi dara dee leen toppatoo di leen jox ñu lekk ba suur di leen jox ñu naan ba màndi bul nangu sax ñu tilim bu miss ñibbee nga delloo buum ca mbooy mbooy ba di leen ñuus ba ñu rey. walaay yaay ndaanaan loolu nga gis. waaw dee na. Ah. <laughs> masih? ma chérie. ça va ci loolu xadi. naka suba si. suba saa ngi nii rek. yeewu nga. yeewu naa ba ndékki ba pare. ah mënoon ngaa bàyyi nag suma yeewoo ma defaral la nga ndékki. ah nga defaral ma ma ndékki ak ma defaral sama bopp yépp benn la. yow tamit yaay sama chérie nga waroon bay rek suma yow yeewoo defaral la nga ndékki. waaw. ah Moussa. tante jox ma dem marché ëndu gi jonne han man nga jox ma dem marché ëndu gi jonne fam sa Moussa kañ nga daan dem gi marché. tante yow chaque jour maa ndu gi ci kër gi. ah ah ndu gi marché nak yow tam yeewoo. fam sa yow xana jangi woo. bàyyi man gi na jangi de. lan moo tax nga gëj jangi xana sa papa yóbbu ko. non fay ma moo fayoo sa papa joxula fay sa papa fayalu la wala yow yaa bëggul jàngi Pa Moussa bàjjen xëy na sama papa yëgu ko ndax sama fay sama tante bi la koy jaarale xadi mii man mii man ngay sosal papa Moussa tante man àdduna mun naa def lu ne sa fen hmm. doo fen moom ndax suñu fami kenn du fen waaye nag sa papa dem na Kaolack deux jours la fay am bu ñëwee lépp dina leer hmm. yow moom moom mooy tuub naa ray sa ndey est-ce que yaa may dégg. papa Moussa te juum nga de te bëgguma yow ngay juum na sama mag nga waroo juum lu tax nga bàyyi ba sama baajan taxaw nga naan sama tànt jox ma baram doggu marché Amina eh duul laa la wax Amina yow munoo bàyyi sama wax sama tànn nga koy jëlal paa Amina yow munoo dëkkee chaque jour di raxas ndab di raxas douche ma chaque jour may chaque jour may duggi marché avec ça nga bëgg sama tànn kenn du ko wax dëgg ah tey daa yeewu di jaay seytaan naan daa defal kër mooy demal boppam marché eh maa ko weer sama kanam bàjjel ma tay lu xam nga ne yàlla wax sa xaalis sutura jàmbur mën nga kaa suturaal rek Amina eh génnal néeg dina génn mais dina si la wax deug madame ça va. ça va bien. yaa si jàmm. maa bien si jàmm bu en fait euh, man suis maîtresse su Amina. Hmm. et ça fait deux semaines qu'elle n'est pas venue à l'école mu xaw ñu jaaxal trop parce qu'Amina fait partie des meilleurs élèves de l'école. Amina taxawaalu rek lay def madame. taxawalu kat la teuna sopna wawna bot xalé bi madame on parle de la même Amina ben Amina bi la mais nan la len meuna a ci kër gi alors qu'à l'école elle est très brillante waw bot rek madame bu fekkee xalé bi moo tax ngay sonal sa bop jaru ko de ndax limi def bugu ko bëggul jàng yow yaayam man wa man jour mo ko de sama wujju bi Beaucoup de jur d'accord Anna, Amina Amina ça va ma chérie loolu ça va Pas bien Amina pourquoi tu n'es pas venue à l'école ces derniers jours

Trois jours seulement. Trois jours D'accord. Je vais revenir dans trois jours ici. Je vais parler à ton père. sa papa. Comme ça va reprendre ses études. Ding. Sois sage ding. Il n'a D'accord ma chérie maa D'accord, kaabi bi ci kër gi amagum naa benn coup. lu mu defati. moom mbaam bi tey nan la def <laughs> ma yeewu mu naan damay camoufler di jaay foo waaye ma wan ko ni maa ko gën a foo mu naa ma chéri ba ndékki nga ma ne ko xëy naa ba ndékki ba suur defaral sama bopp mu naa mënoo woon a bàyyi ma defaral ndékki <laughs> mu ne ko nga defaral ma man ma defar ak nga defaral ma ñooyam benn la muy jaay foo ba wax loolu rek Pa ne tëll ne ko jox ma ma dem marché ah <laughs> tey laa jommi Pa ba mu ne ko jox ma ma dem marché muy def ay affaire man nànd naa mu naan ko yow kañ ngay dem marché xale bi tiiñal ko wax ko ba pare li ma gën a métti mooy xale bi deux mois wa ngi jàngeetu yow lan ngay wax nii lii Cisco il faut mu yëg ko du ko yëg ba pare yow nga ni papa Moussa toog na deux mois jàngiwul deux mois la toog jàngiwul hmm. <laughs> waaye de ku yor nag du sa du réagir bayil ma dajale ci lu met lu mat ñaar ak juroom fukk ba pare bal bi doga tak way nak nag naka jàmbur baa du fekk sama domi dé kenn du ci dé xamal tax xalé duñu fenn bo amé lo bëgg lu la lér du pa musa sa dom la wétal ak mom ci né nga laaj ko dina la wax lépp ana pa musa mom pa musa xol ko ci biir néegam ay man waruna <laughs> bo démé dina la wax dëgg ndax duñu fenn xaaral ma dem ci Pa Moussa léegi lépp leer Pa Moussa Papa Moussa Papa Moussa yewul Badiane. lan ngeen nelaw. non daal dama xaw a ay Paa Moussa dama doon ak sa bàjjen miss léegi ci salle matay danga ne ma di laaj sa tante dépense dama bëgg a xam ndax yow loolu da defrek, koo def tek sa tante wala sa tante le dam lo marché ngay dugg laa bëgg a xam. <laughs> bàjjen gis nga loolu boo si bëggee am loola leex da dem ba marché nga laaj mairie jaay ndugg ak ñi jaay ma xàmmee. Vamos a yow nooy nekkee gor sa tante di la dem loo marché ngay ndugg te doo ko wax nit ñi nga nangu ko yow tek ci pour lan bàjjen yow xam bu yemoon ci lool sax mu neex ñëw su ma marché maa koy xooli ndugg yi koy mu sa papa yëgu ko bàyyi papa topp moo ko si dara parce que xam naa ne tayu ko ndaxte tante ko liggéey liggéey. tante gis nga ba si yaayam sax bi ci kër gi dafa liggéey sama papa te bàyyeen boo gisee sama tante di ma dóor wala may saag réagir ma c'est juste que am na lu ma ci ruus te am na lu ma ciy seet mais yéen ñii di mag yéen a ci mën dara ndaxte ñun ay xale kese lañ. ana sama maana. mu ngi néegam. lépp dina leer léegi ok yow yaa leen duggal marché dina leer. salaamaaleykum. ah ah ah. Mena na. yee kii yaa sama doom jàngoo ko. noo def. toogal toogal toogal. toogal noo def. maa fi yaay si jàmm. ça va. alhamdulilah. Ah, baax riis gën. ah neex gën ngoo ko. nettali nañ ma de dégg naa sa ngénte ñaar fukki ci ni laax ñaar fukki ci ni ceeb ñaar fukki booli vermicelle wax nañ ma lii moo tax ma ne neex ngénte laa lay tudde sama yaay baax moo tax sa yaay daa baax moom kenn waxatu ko ndax man sa yaay jamono daa baaxam moom wax du yàqu la ndax man jamono jooju muy ngénte man bëggoon naa koo xam ndax dégg naa ñaar fukki solo la solo. yaay ñaar fukki solo ko solo yaay ju baaxee ju doom ju baax gi. li jafe ci jamono ji xale yi dañuy wax rek musu musu ñoo solu ñaar fukki solo sa yaay nag ku ko estimé laa estimé naa ko lool waaye dafa fekk ni day saab goro bugguma xam nga rek yaa ma gën a xam waaye yaa ngi ci jàmm. gis nga yaa dama bëgg ñu waxtaan tey jii sa doom ji di sëy ci kër gi bu deewoon maanaam faatu. maa di Mouhamed am mi ne ci kër gi ñu jël Cisco dem taxale ko benen jabar mu ñew ci kër gi japp ko di dóor di torturer di dem lo marché di lo def lo lepp nan ngay def lu may def wa boba ku ko def bu ma fekke may dund ma ndayam mbam xolal bu ma fi fekku danga ma jener te danga ma génn ma avisé ni ci sa kanam xam nga bëgg li ñëpp di waxtaanee koñ beeg miir yeeg ñëpp di ko ma di teg sama nopp bi rek mu tegee sama bët non du baax lan moo tax xale yi ne ci kër gi amuñu jàmm ñi dañ leen di baleloo loo marché togg lu ne la ñuy def loo xale yi te ñuy ay doomu jàmbur surtout sa doomu jëkkër yow nga nekk mag ni ci kër gi te yow loolu di jënti woo ko pour lan eh, loolu day xoolal xaw ma ku la nettali waaye jum na te sax misa la nettali du ma wax waaye ku la nettali mis da koy xool décortiquer ko xool ko xool kanam nga xam ne googu duulkat la Amina sam sëta ci sama gannaaw lay jàll papa Moussa sama séeréer bu heure ma xëyee maa koy defaral mu ndékki na rafet doom gis nga yaana bu dee wuyu maa leen gën a wuyu biir bu dee bandi ci man la ëpp ndax nag tali bes bee laa juddoo nag rawatina seeraas eh. lépp loo leen di jaay fekk na ma am ko yow sa doom ji sëy si nga topp ko defaroo kër gi tas kër gi pour lan waaye yow yow yow yow nag doom xamoo sa bopp boo juddoo tali boo juddoo tali bu bees nekk seeraas man waaye yow doom man mi dëkk fooraan ak seeraas man mi dëkk fooraan ak doom di xaritub yaay si te ñu daan ànd dara ump ma ci dëkk bi waxal te bu ma laal te danaa la wax nag loo xamut dama la doon neexal rek naan la neex ngénte yu kenn xamul yaa gën a naqari ngénte ci réew mi sa ngénte ñetti ci ni ceeb la woon ñetti ci ni laax ñeenti kiloy vermicelle waa koñ bi di ko xëccoo ak di ko ngawti ngawtee sa papa xeex ak imaam ba loolu yëpp ma xam ko sa yaay wàll xëye ak ab jaaba teg ci ñag oh, sëru jidda la ngoonoo ñun xam nañ li xew man maa fi nekk rek naan la neex ngénteeg yu kenn xam fan nga neexee ngénte man daal li ma la wax naa la ko mère moom mag day am fulla kay kay sodoom sa yi nga am na ko sa biir boobu fulla boo ëmbee boo ëmbee boo ëmbee Cisco da la naan deq rendi rey ba nga dee kii ëmb na bu ko defee sax ma ñëw ci sa xew naan la ndokkuleeg waaw wallaay gën a am lu ma la mën a waxal doomeeraam ji nga doon. waaye tey moom li nga rosi xam nga ka. jënk mën daal damaa tiit. lan moo la tiital. dil bi éclaté wu na. ban dil. jënk ndege li nga doon expliqué démb ci salle bi. Mhm. ndekete Miss Guèye ñibbiwul dafa toppaat guddi gi ñëwaat. Miss Guèye moom ci kër gi. fii la fanaan nga naan ma lan. janq noo def xale bi génn téñal ma ci kanam Pa wax la tànta jox ma ma dem duggi balaa muy naaj mu ne ko yow kañ nga daan duggi mu ne la jox ma ma dem marché billaahi janq léegi noo def tiit ma ko kañ nga daan dem duggi yow ragal sax ñu sib ana Cisco dafa dem Kaolack am lu mu lijjanti deux jours trois jours ñëwaat. jànk est-ce que xam nga ne Cisco bu ñëwee ci kër gi kër gi dina gën a jax. jànk tiit naa de. ah caafa ngi bëgg a xam de. caaf kay ba mu xamee du tey. waa léegi nan laay def may wax na paree goma ci dara de mu woowaat mag ci kii yaa mu ci saal bi. kii yaa mu ci biir kër gi moom tamit ci biir kër gi. léegi daal xam nga nan ngay def naa la jàppale nga togg sa añ ba mu neex nga yàq. taaj woo leen boole ko ay waxtaan yu neex teg ci nag di tegal xale yi boo paree nga defar sa ataaya bu baax wala sa was jox leen mu naan. yow moo fi defee dinañ ci génn. ah loolu moom moo fi sa sës moom te ma dinaa la jàppale yow bul tiit bul ragal man maa ngi sa ginnaaw bul tiit bul ragal. Ah, dama lay jàppale man duma la seetaan benn yoon yaay sama xarit. Ah, maa tegal sama caat bu jigéen bi añal ba suur sama caat bi temps yi dara amoo appétit xam lu tax merci añal ba suur Mm. Amina añal ba suur ah, moom réewandi lam la yow Moussa danga may wut wala lan la wala laa yabal ci manam dan laa yónni di lu mu doon ba tax ma dagg sama doom sama jër bi teg ko ni nga ne ko toppee. am na juróom-ñaar xam nga la moo gën a bon ñi nga xam ne dañuy war di fen rek jaxa si kër jaamu la jógee seen kër ñëw si kër jaamu di tas rek. leen fekk na lu xonk rek la sol te léegi xale yi fenatuñ de yaay fen <laughs> ah jatu ah, <laughs> moom kay jam li nga leeral ah yaa mais léegi yow laay waxal gis nga yow fenkat nga jaxase kat nga fenkat dëgg mooy mel ni yow parce que yow moom doo kollu normal doo def ni sa morom doo doo xeeñ ci raay jidda doo def dara yow dèjà sa musóor bi rek wane na la daan da ngaa dangereux te fu ñu la fekk danger ngay sol so belang may wan naa ayaa ana xoolal anya bet bu ko faale Anya xale bi dafa yaradiku xale bi dafa rew. Anya anya rek yow Anya ba suur mu kay añukaay bi tay li fi xewlu ci miss. ni ma ci jàngat bari na. <laughs> xam nga xadi doomaraam la. xade xawma ban façon la waye nak bébé Amina mo am fulla sa bu ko tégalé rek mu bux ko jël li mako tégal tegal parce que day jéem jaay fo ak di camoufler waye dina xamni fi lañuy fekk. Hmm. waaye xali bi Miss mat gi ne ci mom la lax. mat gi ci ndayam la ko doon. wa Miss tay dama jaxlé nguluma jaaxal mau bebek Amina mat gi ci ndayam yëpp a ngi ci moom loolu ngay wax gis nga yaayam ñi la daan def baka mbaam gi di ko def li mu ko def ci kër gi ya da koy fekk te dara du yëngu xale bi da man def bëgg naa ko kii dafa bon kii bu xamoon lima ma xam dina bàyyi xale yi may leen jàmm mm, waaw ma en parlant de ça nag kuy ma la fa rek bayil ba ñu lijjanti bi ba pare parce que dañ Xadija de fi ma jëm ak moom billaay dina xam ne ndox amu fa. miss kaa boobu ñor na ma de. ñor na la mais bàyyi ba njëkkanti lii ba pare moo jiitu. ah waaye de kër gii nag wóoratul de. wóoratul de dinañ ko lijjanti kii li ma ko bëggal. waaw madame seen boolu añukaay tey nu ngeen ko dundee. xaaral ma xool ndax fenkat bi nekkul ci biir nekku fi yow daal jànk. xale bi moo ma toroxal bii xeetu toroxal. kan. lu ndaw li. Amina man daal maa dagg. yee tegal ko xale bi fëlx li ma ko tegal bàjjanam Miss Guèye dagg tegal ko mu ne ko merci bàjjan. <laughs> yow Amina mi am na melokaan de. Hmm. waaw Amina yow si ban ñaataat la am. sept ans. sept ans sept ans dong la am. kii de bu amee quinze ans moom takku leen. doom ndayam la ndayam nii la ko nekkee woon ak man ci kër gi bu ma tooñee weraxle ay bëtam bënn bëtam yu dijj yooyu ku ñëw mu jooy la ko lu mu dugg mën na cee génn. en tout cas daal di moom mu wóoratul kaa bi moo ngi bëgg a sérieux te man nag li ma gën a métti mooy chaque jour ñu gàddu seeni bagage ñëw yendu chaque jour ñu ñëw ñoom moom c'est quoi le projet. man la ñuy bàq nee nañ man lañ bëgg a suruxal waaye man sama fii laay utiliser. duma ne may dara. touti nañ ci ci bon depuis le boo ngi tu wax ma len li xew ci c'est parce que amna luma ci Amina sama la mais amna aussi mhm. parce que day faral di wax benn baat boo à chaque fois day jouer sama mooy que ni sama yaay mosul bëgg lu ñuy def loo xamante day féewale wala loo xamante day yàq diggante. wallaay dëgg la. bon nag kooku sama bàjjen miss gis na lépp luy xew ci kër gi donc la balle est dans votre camp. man de wax dëgg yàlla man dama jaaxle. doy na waar de. doy na waar Mouss. yàlla baax na maaleykum salaam. ñooy fi ça va alhamdulilah. Eh, waaye exil toogal toogal. ça va alhamdulilah. merci. yéen a ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax ça va. papay Amina laa soxla woon. Eh, papay Amina nag nekk fi dafa voyagé mais ñun ay sëram lañu ay rakam lañu. d' accord man maay maîtresse su Amina maa koy jàngal. Mhm.

tantam moko ne na tok ci kër gi bu mu jangeti na koy balel diko fotal diko teyel domam motax dal mané won na fi ñew tamit pour xam kan ci yeen ñi mom moy tantam soxna si ñun duñu ay tantay amina ay bajjanu amina lañ papaay amina suñu mag la gis nga ki ni magu amina la ño bokku nday ak bay kii gor la day dem marché day togg day bale day fobéré lepp lay def

pour Amina ñëwaat à l'école ndax xalé bu mënee li def te bëgg ko il faut ñu japp ci. Mhm. loolu mo tax rek ma na ñëw pour ñu trouver terrain d'entente mëna fexé bu mu regagner les classes parce que tamit tok deux semaines jango ci xalé mën na fàtte wala mën leneen nekk ci bopam bi lool rek moma andi mais bu ñu xiiroo bu ñu gaayoo. soxna li nga wax tay ji luma bét la parce que man yëgu ni Amina jàngiwul te leer ma ni papam yëgu ko gis nga bu doon ki mën nañu wax sax waaw. mais Amina moom mooy bakkanu papaam te bu papa ñëwee dinaa fexe ba nu ñu fexee ba gis la yow toog waxtaan ak yow wala ñun ñu ñëw ci yow wala nga ñëw ci ñun ñu toog ñu waxtaan ma jël Amina dénk la ko. bis boo ko dénkee de ba mu jàng ji ba wàcc dinañ ko dëbb ba mu mel ni dege ay wal moom dama koo gis ci Amina nii di ko wal. miski jaaxal nga li am rek laay wax.

ngi sant yàlla bu maa ngi sant bu baax kay. alhamdulilah ba sonnoo ci yoon wi. ñu déedéet ñu sonnuñu sonnuñu si yoon bi. ki ma booleel yow moom ku la xam la. la muy Mami Dia. Mm-hmm, dëgg la dëgg la xam naa ko xam naa ko bu baax kay. nee na mag kii ma lay booleel kàngam la. Mm-hmm. tey li tax mu boole ma ak yow. Mm-hmm. damaa amoon sama ñaari sëriñ yoo xam ne. defoon nañ sax mu jàpp waaye. lañ defaloon lépp yàqu na. Abdourahman mm-hmm. moom tuxkatub yàmbaa la Babacar Fall mm-hmm. day mooy yàlla mm-hmm. xam nga sëriñ bi mooy yàlla doo dëgg la dëgg la ba tax na sëñ Saar li ma takkoon lépp yàqu na lépp toj na dafa toj nga doo defantu dëgg la wallaay ba tax na am sama ñaari njëkkee doom dañ koo sonal. dëgg koo sonal lool lool lool mm-hmm. wow kenn ki dëgg na bopp kenn ki wow na gat ba. Mm-hmm. maara day taal laax bu wow ci bool mu kenn ki gën a wow gat. ba tax na ma bëggoon nga dimbali ma mm-hmm. ba ci yaakaar. dëgg a dëgër bopp de ah, sama rawaan yaa ngi ma koy wax sax. Hmm? naan sow gi ma koy wax nii. dëgg la ki ci gën a miis lañ koy wax. miis. waaw. nga dégg ndax sama rawaan yaa ngi ma koy wax. Hmm? ñu ma koy wax miis. sëriñ ko mm-hmm. tasee waaye na sa xol sedd ndax mami wax na ma lépp. Mm-hmm. man it xam naa lépp. moo taxoon avant may ñëw ma defar li may defar lépp indaale ko. ndax man dama lamboo ñaar dama di ceddo di saltige bu ma ñaanee yàlla mhm. daf ma koy may mhm. bu ma ko ñaanee mayuma sama jikko ceddo gi ñëw ma foqati def far force kàngam nga lu ma bëgg loolooy am maa ngi soog gis sëriñ to ndaw si dina naan café ñuy ay doomeraam wan doo ngay seen métier dañuy wan ba mel ne lu li ma lay defaral barke roogu yàllin seen boo ko defee si kafe jox ko ko mu naan leneen li sa goro ak sa jëkkëru doom ji nga def ko si lekk moom daal lépp lu ñuy lekk walla ñu koy naan de ca def pay bu pay pay bi bëri say mbir naat suqaliku sa xol sedd Serigne yaa gis nga kër gi. kër gi bul tiit bul jaaxle bis bu ma la dejee ñu jël satur tur xaatim ko si kayitu kër gi mhm. def si ak sa turu doom ngay nas diino ci loo bëgg loolooy am. sëriñ naxoom maa wax li maa ngi gis kàngaam. gis nga xam nga li des ci liggéey bi nga jox ma seen tur gis nga saafara dégg mm-hmm. day fuur boo ko deferee mu baax te jàpp mm-hmm. day fuur muy wone ne jàpp na léegi nag jat bi moo des ma jël seen tur saañ ko si butéel bi lépp lu ñuy naan nga ne pey lépp lu ñuy lekk nga ne pey waaw su defee noonu rek mu saxaar xeeñ lu neex nga ne ku njëkk ki nu tudd ah, ku ci gën ba pare waaw moom la ñuy wax miis miis miis waaw roo ko yaalin miis nene na buteela ne diggante saambe fa tooka soon fa ñaaxeen fajam sambe basu tuat me eh? akan kia gi kia kia rogo yan insin kia me khedang kem khedang o fiya namoten ke bugma o fiya namoten kia aroka nga mene basu khat der sambe fajam sambe akan aksisko simko simko gay rogo yalin sen mexe xeɗang simko fanene ɓekano butelanayi basu toxat o xene ke na bugna fata jeg ndeer sambe fa jam sambe sambe école fa toka soon fa jam sambe simko basu toxat jam lena ñun gis nga lii na pey pey bi mel ni tuleeg marle yow bu bu lepp lu ñuy naan rek ca capey bu dee ndox neel pey limonade neel pey muy saxaar di xeeñ lu neex say mbir di naat di gën a jolli ci kaw jam ngay am xayda xayda la maa ngi soog a tasee kàngam bu tiit bu ragal maa ngi sa ginnaaw gëm naa la gëm naa la gis nga kër gi mhm. di nga dem ba loo wax la ñuy wax loo bugut kenn dootu ko fii def sa jam li ñooy fay maa ngi kita di tasee kàngam gën nga bu ma demee ba jàpp si miis ba jàpp ko ci mo ci gëna a ba jàpp ko ci dana mel ni loo sànni géej do dootul génn moom rek ci wow gan comme laax bu wow ci bo to gis nga mis bes bu ma koy sol yi mandi su boobaa duma indi ke bi ceeto gi lay indi mandi ba ne tap ni ko ciix mu na sa xol gala deg gala deg fita koy motali mhm. maa ngi dem ya ana nay pay di xaar xey ñu neex sëriñ sëriñ ki sering, sëriñ sëriñ deug nga ni ki moy sëriñ ñi ma doon dajal ñëpp yow ay kat lan xamunu dara ki yow ki wor ki da nan def sax mu xawa japp waye Gila, Gep. miss sama dom jago. Eh, miss Nene Rudy? tuuti xat daal mana marché ma kafe indi le? yaa ngi ah. man nga jox ma kafe ma naan xadi jox ma ma naan moo gën yow nga jox ma ma naan parce que yow laa gën a ragal ka xadi dangaa defe ne gisuma la ba nga ànd sa ponkalu ci verre yi taxaw lay gis nga yéeg ak mom mu jox la xarfa xufa nga ñoo def ko ci kafe na ma miss max ngay tag do rek la yow so amé ko jox mu lek da nga jox ki ya geuy wala sisko mais man miss ge mënoo le ma jox lu ma naan wala lu lek da nga def sax xonjam ba tok ñeme nga ta am fit yow yaay xaju xaram ya bon yaay doome xaram yow man dama la def comme sama dom ya xadi mi la yemalé motax ma dem xamné xadi néew fi ma dik tangal kafe dila andit xam ne balaa xatee jóge marché man nga fee xiif yow mi yow yaay xaj yaa bon yaa dib saay-saay yaa ñàkk kersa ne gone ak ferme ñemme noppi tëstën yaa bon bu mag beeg bu ndaw bi la rek yow ñeme weesuul nga jël sa kaasu café bi def ci liñ ciy def ñëw di ma taxaw di ma jox man sa doom sax joxuma café ma naan ba yow nga naan danga may defaral café may naan maa koy defaral sama bopp mais pas yéen dama leen a ñemewut ngeen am ngeen fit ñeme ngeen sëriñ waaye yow ko dal defaral la kafe ñëw di la ko jox nga dama jaay ñaari kersa gu metti gi. waaw léegi defoo ci dara naana naana. lu may naan man sama biir daa fees. café mënul feesal biir naana. yow man naan gees waaye yow mis mi. naanal maa nga jox xadi mu naan soo leen paree ma naan. naana sa biir feesulee naana ndekkee goo naana. damaa def sama teraanga di leen nga jaay ma ñàkk kees. Hmm. donc ma xale du wax li may def. doo naan de dangaa am fit rek te ñeme. ñeme ñeme bay bëgg a dee sëyul baara doomam di sëy jéemu koo conseil def yëfu kilifa xanaa toog sëriñtu sëriñtu sëriñtu puisque moom dañ koo sëriñtu ba siddi ko kenn xamul lu muy nduróol waaye man fi ngeen may bàyyi ñeme bay bëgg a mel ni xaju bul dog. noo ci loo nekk. maa ci jàmm bu baax. alhamdulilah ana Xadi. Ah, lu xew. lu xew nga bëgg a xam seen miiru dëmm bi ci biir kër gi. ma toog fii nee dafa xonjom lu ba ñëw wuti ngandik maamu sëriñam mu jox ko ay mbir mu ñëw def ko ci café fekk moom ma toog miis sama doom ji. tagg ma sama ñaar téeméeri maam ak juróom fukk yoo xam ne man sax ñooñu xam naa bokkuñu xeet ñëw pour neexal ma ma naan ko ñu ne dafa sëriñcu bu bëggee jàpp dina fiit keneen waaye man xam naa ne duma jàpp yow man yaa anam am na fit de waaye maa ko kii nag moom moo dëgër fit doomu jàmbur mu toog mu jël saafara nga def ko ci café jox la ko pour nga naan ka am fit mais miis xam nga lan moo ma neex ci yow mm. yow seen famille yaa ci gën a tuuti mais yaa ci gën a am fulla fulla gii na nga am bu la ci dara jëlee gis nga mère Anna mii na nga koo war a lijjanti parce que nag dafa lii dafa ëpp de. waaw man dinaa ko lijjanti ndax. dinaa ko régler trop c'est waaye man li ma gën a jaaxal sax mooy musuma gis koo xamante ne nii doomam day sëy si mu gàdduwaale ay bagaasam ñëw sëy si waale li tamit duñ ci wax. amul kër amul jëkkër amul far amul waxaale kenn bugg ko kenn nobu ko léegi nag ah sëriñ ba sama mag takk na doomam léegi mu ne waa kay léegi nag man damay bokkaale bokk ca sëy ba ñëw ci sëy bi sëriñ bu mu xam dem fa fu mu xam dugg fa lu mu xam wax ko ñaawteef bu ne mu def ko dañoo liggéey sama mag ba sama mag sax mënul yëngatu léegi mu ne ah xool ay rakkam xanaa kiyaa la ñuy jàpp waaye man mi Gueye kenn du ma lii nag moom war ngeen cee jóg yow moom mi xam nga la ma neex ci yow yow seen famille lu muy rëy yëpp yaa ci gën a tuuti mais fulla yaa ko ci ëpp yaa ci ëpp fayda lii nag bu yeboo nga lijjanti ko bu ko bàyyi mu sedd de parce que maire bi dafa ëppal buñ ko bàyyee na dina def leneen lu gën a pire lii. waaw ah, moom bu dee Kia moom xam naa du wax Kia moom man Kia man xaw ma man Kia ban famille la bokk Kia famille dañoo rax buñ ko jaawalul ci hôpital yi dina ma jaaxal. Ah, ko bàyyi mu sedd de xaaral ma dem gis ko wax ak moom parce que kii dafa ëppal il faut ñu wax ak moom. dama gérer seen côté man. ñu wax ak moom. kooku entre waaye yéen kii kan la ah, jot sama doom ji eh, def nga fi xale kat yow waa ci loo ne yaa ngi ci jàmm maa nga fi ñëw naa fi sànq eh, eh, lu xew lu xew ci la miss ba miss de momlarom, rom bu mom la fekk ci salle bi waye miss de la tam de tam dëmm man mi xam na la dal miss de juteu mang ngi moom daara sa doomi nday dem marché xati yi mhm. ma ne ko defaral mu ndékki dem diko jox mu nan ma duma xalé duma mère ak duma pa Ya, ana miss waxul loolu lu miss miss Nena, na nga gaddo fee sa ponkalu maamu sëriñ indi ko mu jox la safara nga tangal kafe def ko ko ci kaas def saafara bi jox ko ko pour mu naan ko. tey fen ah, la wax tey fen waxul dëgg te gis nga xale bi ñeme na ñeme goo xam ne. Hmm. am fit am fit goo xam ne seen famille moo ci ëpp fit. man Mister maa jaaxal yow nekk xale gën a nekk xale ci famille gën a am fit gën a sañ pour lan fan la ko teg xale bu ndaw. saytaane la laa la wax. saytaane la ñeme na am na fit waaye na ko laaj magam. ban magam. na fi mbay. fi mbay kon magam la. moom muy duul xaritu kii la waaye xoolal fexe naa mbokkook moom ba def ca link euh, ràbbale ko ca mm. xaritu kii la na fi mbay oh. waaye nag ko laaj dina xam koy wax ci biir pax de dina xam koy wax ci biir pax mm. man xale may dëkk waaye maga may daal kon moom mën na fi mbay meloon nañ fi noonu bokkuñu dara ba pare mu taqale ko muy duul kat waaye yow moom xam naa ne xale du la yëpp xam nga yow ku la yëpp dalaa fekk ngay nelaw surtout maa bu ndaw mm. li ko nag ñu jënti ko ba mu leer té comme té nak da la jëñ affaire de sëriñ no mëna def pour tek seen gémmiñ def ko xamuñu seen bop ay ah. ndike nek ci kër solo la yow dañ ñi ba ma ak ñom ba paré na hmm. sa xol sedd yow xadi waa jeex na na sa xol sedd jatt yaay sama doom sama doom sañ sa nga de merci gis nga rek ñii rek ñëw seet sama doom ndax neex na you. wa miss. ça va Ndiakhate. doo ma sarax boobu nga dagal ma sama leti ma firee ku rap na de. kaay toog. am ah, xaaral ni ba Tak, papa. taata ko ko Ini saya belum bi

ñu héberger la ba pare nga naan na ngay indi fii ay sëriñ di liggéeyaatu pour kan pour lan dafa am fit dafa am fit dafa ñëw fii fekk maa ko ëpp fit foofu day mag ak ah waaw comme dafa nekk mag mu réew rek mu gis xale bu ko yar rek mu jox tàkk xale bi de dina ko yar te coow lu jub dafa ëppal de kii moom la ngeen war a jub ci moom dafa ëppal mais li ma ko wax li ma ko yàq yëpp ci néeg bi dégg na ko man samay dëgg dama ko nëbb kenn. yee man de dama koy lijjanti à ma façon à ma manière ba mu saf. mère bi maa ko të. loolu kese la. maanaam moom de duma ko may dara ci kër gi. parce que baaxul mère bu bon la. dafa sañ de. xam maa ko gën a sañ. dafa sañ. xamoo mère bi yow dama koo ragal waaye ragaluma ko te duma ko dal waaye boo firee nii sa bopp bi loo ci def. ah xanaa perruque. Ah. perruque laay def. boo ko raxasee ba pare kon nga diw ko ñëw ma renversé la nga xam soo dëppoo rek dina neex. waa baax na waa ah yow da baax miis nga amoo benn problème ñi la xamul doomu ñoo fi nekk di kii. baax dama leen a sarax sama der bi man. waaw lu ma war lu ma war a faj moom. dinaa ko faj ba mu neex. kër gi ma waaye ah, ñëw nga. ñëw naa. Eh, daal ba marché neex na tey. tey moom marché neex na gisoo sama dugub bi nu mu rafetee. ah maa dem nag yaay. ah dugub mi rafet na amoo dara loo hmm. ah. ah, xam. ji moom lu ko tee dem marché. daa dem marché. yaay bàyyi ma waaye kii nu muy demee marché ak ñi fi nekk di ko surveiller. am na bi sa ginnaaw. waaw kañ la fi ñëw. bi demee noonu. ay yaay. waaw nga woon bàyyi ba mu ñëw. lu koy def lu koy def looy xaar lu may xaar. toj nga kaasi de. dox na ma butéel ba ma defaral ca mis café naan na ko. naan fu mu koy naane. bu nga xaj ji nga xam ne xaw ma dëmm la xaw ma jaam la xaw ma gor benn tànk ay wax la ma indi yoo xam ne xaw ma waxee lu mu doon. daa gis sëriñ. muy fen gisul dara bëgg maa tuuri wax rek. yow jaay damaa xamul lan ngay defar di joxe mënoo woon xaar ba ma ñëw. ak lan ngay bàyyee ba ma génn sëriñ bi di ñëw sama ginnaaw yaay. ah yoo xam ci ko ëppal ëppal ak yàqam te bëgg gaaw mu jàpp. man maa la ñuy defaral sax chaque jour café mënu woon bàyyi ba ma ñëw ma defaral leen café ah. ko ci jox ah, def naa loolu. ci néeg bi. jox ma ma defaral Cisco. waaw dana ko jàpp mu jàpp ko dana yomb hmm. dana ko jàpp. mu mm-hmm. ko jàpp wax nga dëgg ak keneen ki. Ah, waaw ko dama koy jël léegi damay dox ma def ko ci añ bi. añ ba daa fàttali. Ah, andi naa ko gérer. noo ah, naa naa ko defal mu naan kii. ah. dama ko def si añ bi. Mm-hmm. maa kamu looy defal mu mën bàyyi ba may am. ëpp la jàngat yaa ma gën a xam moom ko boo rek yàqaat ko. jox sama. em giúp Rồi thôi mình kém người học